ورضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر مقدميه وخلفائه رضا يعم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jili ci gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu wutuñu julli ñu ci yant yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gërëmal ñu saxaaba yi ak ñu topp njëwam ba bés penc gërëmal ñu suñu wasila ci yàlla mawlaaya Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi ak mboolem muqaddam yi ak xulafaa u yëpp ñu ngi nekk ci téere bu barkeel bi ñuy wax jawaahirul maani wa buluugul amaani min faydi abil abbaas tijaani ñu téere boo xam ne fa tabaarakallahu téere bu barkeel la Seydi Ali Harazim Barrad al Faasi al Maghribi dajale ci jàngale Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Euh, ñu nekk ci ñaareelu xaaju téere bi ci faslu ñetteel bi dars bi moo di wa sa'altuhu an qawli aljazuli radiyallahu anhu fi xizbi alfalax afdalu ma huwa ahluhu wa ajaaba radiyallahu anhu bi qawlihi i'lam anna lirrububiyati ifaadatin mutabayinatin fi lkayfiyati في المتباينة في الكيفية والعظم واللذات والخبواص على مرتبة الواحدة المفيض عليها على المرتبة الواحدة المفاض عليها سواء كان الغيظ في مقابلة عمل أو توجه من المرتبة المفاض عليها أو في غير مقابلة شيء والحق سبحانه وتعالى لم تخلو رتبته طرفة عين من هذا الفيض أبدا سرمدا وهذا الفيض هو المعبر عنه بالفضل والعطايا والمنح والإنعام إلى ما يبلغ ذلك من ظهور سر العناية منه والمحبة منه سبحانه وتعالى والتعظيم والتبجيل والتكريم للمرتبة المفاض عليها ما ذكر قبل من الفضل والعطايا والمنح وإذا علمت هذا علمت قطعا أن ما أفاضه الحق على نبيه صلى الله عليه وسلم عاجلا وآجلا من العطايا والمنح التي لا تقدر العقول على درك أدانيها فضلا عن أقاصيها وعلمت أن أن تلك الإفاضات منه سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم متباينة الكيفيات والحدود في الكثرة والقلة والصغر والعظمة وفي كل ذلك يلوح للناظر فيها تصريح لعلو رتبته صلى الله عليه وسلم عن جميع خلق الله وعظمته وعظمة مكانته عن كل ما سواه وآليته صلى الله عليه وسلم لتلك العطايا ثابتة بحكم عناية الحق به ومحبته فيه فهو أهل لقليلها كما هو أهل لعظيمها والداعي طلب من الله عز وجل أن يجازي أن يجازي نبيه عن ما علمنا من الخيرات والبركات وما أتاح لنا رب صلى الله عليه وسلم من النعم العظيمة والمواهب العظام التي يدهش العقل ويكع جواب عزم عزمه عن الإحاطة بأقل قليل منها وما بذل إلي إلينا من النصيحة وعلمنا من المكارم الأخلاق والآداب التي تصلح لمن توجه بها إلى حضرة الربوبية ثم ما وقعنا به في ذلك من أليم العذاب الأبدي الذي لا تطيق العقول وصفه وما أعقبنا بسبب ذلك من النعيم السرمدي الذي يدهش العقول ذكره وكل وكل شكره صلى الله عليه وسلم علينا في هذا غير متناهي لو استغرقنا طول أعمارنا للقيام بشكره صلى الله عليه وسلم لم نؤدي xataa miqdaara xabbatin min fi muqaabalati birrihi sallallahu alayhi wa sallam wa lamma alima daa'i ajzahu an alqiyaam bi shukrihi sallallahu alayhi wa sallam ala ma zukir radda dalika ila alxaqi subhanahu wa taala lima lahu min saati alqudrati alilahiyati ala tawfiyati shukrihi anna sallallahu alayhi wa sallam bi adaafin mudaacafa ka anna addaa'i yaquul yaa rabbanaa إذا علمت عجزنا عما وجب علينا من القيام بشكره صلى الله عليه وسلم فاجز عنا بأعظم ما منحت منحت رتبته العظيمة من مواهبك ومنحك التي خصصته خصصته بها كان أهلا لعظيمها كما هو أهلا أهل لقليلها صلى الله عليه وسلم فجازي فجازه عنا بأعظم ما هو أهله من منحك ومواهبك liyakuna zalika minka subhanaka subhanaka niyabatan anna fi shukrina alladi la taqata lana bi wassalaam Mawlana Seydi Ahmed Tiyaani dañ koo laaj imam Jazuli benn arif billah la ci min a'immati tasawuf dafa jàngale ci benn salaatu bu muy wax xisbul falaax mu ne yàlla ijzi anna nabiyana ma huwa ahluhu maanaam nag ñu fayal yonent bi li mu yeyoo li mu yeyoo loolu nag lañ ko laaj te loolu ñun tijaan yëpp danañ koy def bu ñu wus faa pare wala bu ñu werdee pare ne jazallahu anna nabiyana wa sayidana wa xabibana wa shafiana wa mawlana muhammadan nga teg ci ne maa huwa ahluhu wala afdalu maa huwa ahluhu afdalu la wax kii maanaam li gën maa huwa ahluhu ci lim yeyoo yonent bi daal yàlla nag ñu ko fayal lu gën ci li mu yeyoo mu mel ni bu ne lu gën ci lu mu yeyoo dafa mel ni dafa am yu mu yeyoo te am na yu ko gën loolu lañ laaj Seydi Ahmad Tiyaani ci xam-xam bu bari bi mu ne loolu pour prix gu gàtt daal na xam ne yàlla dafa am ay bëb yoo xam ne nii yu wuute la ci ay dimension yu wuute ci ay grandeur maanaam am na ci yoo xam ne dafa kawe lool ci ay martaba yoo xam ne da koy sotti ci jaamam am na yoo xam ne itam de retour yu xaw a minime la par rapport ak yële donte benn bu ci nekk la ca ne ci may ak leer kenn xamul nu mu toll tey ku xamoon un un ñu ne un euh, buñ ci tegee tabaarakallaahu ñaari zéro dafay nekk cent ñu ne la cent franc ba yàgg ñu ne la ñu tegaat ci beneen zéro mu doon mille francs ñu tegaat ci yeneen zéro beneen zéro mu doon dix mille francs ñu tegaat ci beneen beneen zéro mu doon cent mille francs tegaat ci beneen zéro mu doon cent mille francs euh, maanaam un million un million tegaat ci leneen euh, wala ñetti zéro mu doon un milliard maanaam un yooyu ku ne xam ne ne un un la waaye grandeur bi mu ngi wuute woo selon multiplication bi ci yàllay def kon benn faydu noonu lay mel dina doon benn beneen bi itam nga ne beneen faydu la fekk ne seen différence kenn xamul nu mu toll Seydi Ahmad Tijaan nag nee na yonent bi sallallahu alayhi mayam yooyu nga xam ne yàlla moom lay joxe ci ay faydu euh, nga xam ne moom lañuy tuddee ay ngëneel ak ay may ak ay xéewal nga am ne ku ci yàlla jox rek jox na la lu dul jeex euh, mais différence yi moom mu ngi fi ci grandeur yi ak yam gi nga xam ne képp kum ku ko yàlla inséré ci sa ruux euh, tabaarakalaa nga doyal sëkk loolu mooy préalable bi mu la doon jàngal maanaam yàlla dafa am ay may yoo xam ne dafa amee ay dimension mu ne boo xamee loolu nag qatan di nga xam ne li yàllay joxe yëpp yëpp yonent yàlla muhammad moo ci gën a yey d'ailleurs moom la koy jox yàlla nag li mu koy jox d'une manière perpétuelle daf ci am dimension yooyu maanaam am na ci yoo xam ne nii dafa rëy lool moom moo ko yeyoo am na ci yoo xam ne xëy na dafa yem waaye teewul moo ko yeyoo euh, waaye nanga xam ne mooy yàlla yëpp yonent bi la ko yàlla euh, envoyé directement ndax moom rek la bind ngir jëmmam moom la bëggal boppam moom lay jox léppam yi rëy yeeg yi ma yi ndaw yi yëpp moom la koy jox léegi nag kii di julli moom dafa wax ne wala kii ñaan dane moom yàlla certes sax yow yaa yor may yi yaa yor ngëneel yi yow yaay jox yëpp yonent bi moo xam yu ndaw yi ak yu mag yi waaye man maa ngi lay ñaan comme man xaw ma nu ñu toll mënuma fa am accès waaye yow mi xam ni mu toll ak ni mu mel maa ngi lay ñaan nga mayal ma ko may a gën a rëy ndax man ya ndaw yi sax xaw ma ko bay xam yu rëy ya waaye yow mi ko xam nang ma ko joxal yi gën a rëy te de Ahmed Tidiane nee na loolu en guise de reconnaissance la ko ñaanale yonent bi ndax nee na ñun bu ñu desoon suñu giiru dund ne dañ bëgg a sant yonent bi delloo ko jukkal ci benn may rek benn dotation bu mu ñu jox nee suñu dund dina jéex te duñu mën a sant yonent bi doy na ci rek yaa ngi julli léegi timis yaa ngi julli geewe yaa ngi julli suba yaa ngi julli tàkkusan hakaza loolu ngëneelu yonent bi la ndax yàlla moo ko yónni ci yow ba nga gëm ko mën a julli julli yooyu nga xam ne lim lay rafetaay ci wàllu lumière kenn xamul lu mu toll kon yow boo jaayoon sa kër itam mënoo fay yonent bi ci julli gi nga julli léegi rek te loolu ñaata at ngay julli boo fi yàggee itam ñaata at ngay julli te benn bu ne bor la ci yonent bi kon yonent bi mënuñu koo fay ci mboolem cadre yi nga xam ne moom la ko yàlla defal léegi nag comme yow mënoo ko fay xamoo nu mu toll reconnaître gi nga reconnaître sa doyadi ak sa ñàkk mat looloo waral nga attaqué yàlla wala nga wax ak yàlla ne ko maa ngi lay ñaan yow mii may yonent bi xam naa ne sax ba nga ko dalee may juddooguma waaye maa ngi lay ñaan rek comme yow sa may yi dafa am ay dimension am na ci yu kawe lool am na ci yu yem te yëpp moo ko moom waaye maa ngi lay ñaan nga tànnalal ma ko yu gën a kawe yi joxal ma ko ko fa tabarakallahu mu euh, mu mu doon sama euh, reconnaissance ci moom euh, moom Ali Harazim Barrada nag mel ni dafa daanu leer ne faf xam nee na na dégg rek xoolal façon bu yéeme bi Cheikh na Tiyaan yi firee lii nga xam ne lii kenn mosu koo wax ci gaay yàlla yi loolu ngeen déggoon Mawlaana laa Al Hadj Abbas Dabbaax itam bi muy firi inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi mu ne li tax jaam bi naan allahumma mooy yow yàlla mankat yonent bi dafa kawe lool ñu tuuti lool dafa set lool ñu tilim lool dafa baax loolu ñu bon lool kon ñun amuñu dimension julli ci moom yàlla yow mi nga xam ne yaa ko xam nag sut ko ci lépp may ko lépp ñu ngi lay ñaan yow salli alayhi na nga julli ci moom wuutuñu ci gis nga loolu ci déggin bii la ko jële muy Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu bu bëgg a wax ne kenn amul dimension dem directement ci ci bi ne da koy jéem a fayal sa bopp ndax yow yaa ngi bor yow mënut a fay mais man ngaa wax yàlla mi nga xam ne moo ko bind moom mu fayal ñu ko de même ñu nit noonu la ñaanee yàlla fayal ñu Seydi Ahmed Tidiane lu gën ci li mu ñu defal fa tabarakallahu ci may yi gën a kawe yallahu an najziyan li cheikh sayidina Tidiane lil karami maudi yallah mu ne wa saaltuhu radiallahu anhu an xaqiqati zuhdi fa ajaaba bi qawlihi xaqiqatu zuhd fi lmas xaqiqatu zuhd fi lmashudi fihi huwa huwa tarku wal iraadu anhu wa bidaayatu tarku wal iraadu wa tamakkunu istinaasu bi tarki wa nihaayatu dawaamu nisyaani xataa laa yaxtura bilbaal wa nihaayatu alcuzma ixtiqaaru zuhdi walmashudi fihi walaa yara zuhda shay'an walaa yaltafitu ilayhi wa maa daamat al ashyaau qaa'imatan fi nnafsi fa zuhdu fiha matlub xataa ida turikatil ashyaau min annafsi wa saubat min jamii alkaaduraati dahabat suwaru alakwaani min alqalbi aynan wa itharan fala zuuda fa innahu fi hada alxaal yatamakkanu minhu xubbu daati almuqaddasa fa ida tamakkana xubbu daati almuqaddasa dahabat alakwaan wa muxiqat fala ayna wala athara fala yutasawaru xutuuruha ala alqalbi fa huna la zuhda wala mazhuda fii wa fi hada alishara bi qawli alshay alshabali radiyallahu anhu hiina su'ila ani zuhdi fa qaala lahu maa ma'naahu inna ad-dunyaa kullahaa maa fiihaa min ka hasaatin mulqaatin fii falaatin marra alayhaa maar fa in taraka al-maar li tilka hasaat falaa yu'addu falaa yu'addu zuhdan dañoo laaj Seydi Ahmed Tijaani lan mooy dëddu lan mooy dëddu àdduna baat bu siiw la ñu koy wax gaa yi yàlla yi diw dafa dëddu àdduna diw dafa dëddu àdduna lan mooy dëddu àdduna dëddu mooy contraire u jubal boo doon dëgmal dara euh, ñu jekki-jekki ne la euh, oññeekul retournez nga dëdd ko wan ko gannaaw dafa am ñoo xam bi yàlla bindee àdduna ñu mos fi dara àdduna dafa ñàkk ci ñoom fayda ba ñu dëdd ko dëgmal yàlla loolu nag lañuy wax dëddu àdduna euh, sëriñ Babacar si Abdoul Aziz day wax nag ne bari na kuy wax ne dafa dëddu àdduna fekk àdduna moo ko dëddu moom ndax ku xam ne lu ne def nga ko lu ne wër nga ko mënoo am dara nga xëy xëy ne naa dëddu àdduna déedéet àdduna moo la dëddu mais Baye Seydi Ahmed Tidiane dañ koo laaj lan mooy dëddu àdduna mu ne dëddu àdduna moo di euh, dëddu euh, bi ñu xam te mooy bàyyi àdduna début bi bi bi da koy bàyyi ba yàgg nga wan ka gannaaw nag loolu nag dafa am dimension ndax début bi da koy bàyyi wan ko gannaaw mais day metti nag ndax largesse yi nga bëggoon ak yi nga daan def yëpp doo ko amati sa xol di metti waaye nag teewul nga yàgg ci rek boo demee ba yàgg ci day da ngay dalay yéegal beneen dimension mooy al istinaasu bi kii yi da ngay mujje di bége sax bàyyi ji da ngaan waa man de maa ngi sant yàlla xoolal rek heure bii bu ma fekk bu ma fekkoon ba tey ci daw kii yi ma daan daw léegoon maa ngi ci lii léegoon maa ngi ci lii léegi commencé ngaa bége sa àdduna gi gis nga nim la noppalee waaye boobu itam dafay am beneen dimension bu ko gën a sori mooy da ngay dem a dem a dem boo góorgóorloo ci jaamu yàlla ba fàtte ne danga dëddu àdduna ndax koo dégg muy wër naan man dama dëddu àdduna rek dëddoogu ko ndax day dem a dem a dem ndax loo dëddu te minute bu dee nga nga tudd ko kooku jox nga ko intérêt mu ngi mel ni rek ku ku fase soxnaam yàlla incha allah musal fase benn soxnaam te fu mu toog moom lay waxtaane naan non dama ko mujj fase te fu mu toog di ko waxtaan bu yàggee di dinañ xam ne bu ko fasee ci làmmeñ itam xol xol bi moom fasew ko kon àdduna boo ko fasee itam foo toll naan dama bàyyi adduna kooku wane na ne yow bàyyi woo dara da nga cee jotul rek mais dimension bi gën a kawe nag mooy quatrième bi mooy dem ba xeeb sax li nga dëddu maanaam dafay minime ba nga xam ne mu ngi mel ni kuy dox ci suuf doon multimilliardaire di dox ba seen dërëm wala fukki dërëm xam nga kooku ñàkk fayda gi muy ñàkk fayda ci for gi mu koy for xam nga loolu jéggi na dayo kon kooku bu génnee bu bu rombee loolu ngir milliards yu mu am d'abord moomu ko ñaareel bi mooy bariwul ba pare mu demaat nag wolu rajo beeg télé yi ne pour wan leen grandeur am fo romb na sànq fukki dërëm foru ko xam nga kooku tuuti gi day ëpp moo tax nit yàlla yi dinañ àgg ci dimension yoo xam ne toog sax di leen wax naan danga nga àdduna yàpp leen la parce que àdduna doyadi nag ci ñoom doyadi goo xam ne gisatuñu valeur bu ñu leen war a tàggee ci dëddu gi ñu ko dëddu loolu nag mooy dimension bi gën a kawe gis nga moom la Cheikh Al Hadj Malick toll woon radiallahu anhu ba daan na wax dërëm da doon jàpp ba gis benn dërëm bu fàkku euh, ci njàpp mi mu jël ko di ko koŋ ne ko yow àdduna yow dërëm euh, tas nga àdduna tas nga ak mbokk euh, tas nga diine waaye di nga ko mënal ñëpp ba mu des Malick mii ne ko wurru sànni euh, noonu àdduna gis nga ni mu ñàkkee fayda ci moom te àdduna mooy représentation bu ñu doon représenté àdduna mooy xaalis rek àdduna moom wax dëgg yàlla bu ñuy wax àdduna xaalis a tax ñuy wax euh, bàyyi gi ñu ko bàyyi ñoom dimension bi mu leen di yéegal mooy ruusati nañ sax di wane ne ñoom dañ koo dëddu nger dañoo gisatul benn valeur bu mu am ci ñoom loolu la imam Chabali radiyallahu anhu waxoon biñ ko laajee lan mooy dëddu àdduna mu ne àdduna bu leen ma bu leen ma laajati dëddu àdduna ba bases yooyu bu leen ma ko wax mukk mu ne ku romboon benn xeer benn xeer boo xam ne nii ci digg àll la nekk nga romb ko ba yegg sa kër waaw ndax loolu dinañ la tuddee ne da nga dëddu àdduna ci xeer boobu maanaam lu tax foroo xeer bi xam nga man léegi sax fukki dërëm laa wala dërëm xam nga loolu xaalis waaye xeeru kese nga romb ko ci màndin bàyyi ñëw ñu naan ndeysaan kii moo dëddu àdduna xoola xeer bi mu romb rek xam nga loolu yabaate la àdduna ñoom dañ jàpp ne xeer boobu sax moo ko ëpp kon ñoom seen dimension toog naan dañoo dëddu àdduna dépassé nañ boobu niveau loolu benn lumière la boo xam ne bu nekkee ci xol àdduna dafay doyadi lool ba naan damay dëddu àdduna du nekk seen mbir nga gis Seydi Ahmed Tidiane dimension ni mu kawe xoolal ñun dëddu àdduna ni mu nekkee fii Beuz. da ngay gis nit sax dëddu àdduna ñu topp ko mu jël njañ sol ay yére yu tilim nit ñi darka naan laay kii dafa dëddu àdduna ba mu jéggi àdduna ji mu doon wax ne dëddu na ko moo koy mujj toppaat euh, Cheikh Tijaan nag di wane ne àdduna doyadi na doyadi goo xam ne dëddu ko <laughs> dara da nekkul sax ndax dafa dul dara ndax wa inna daaral axiratu la hiya xayawaan al rek mooy kër gi matawut wa min kalaamihi radiyallahu anhu li kulli qalbin jawhar wa xulaasa fa maa fi l-awwal suwaru maa fi s-saani wa maa fi s-saani suwaru maa fi s-saalis wa maa fi s-saalis suwaru l-jism suuratu maa fi t-tabiicati wa t-tabiicatu suuratu maa fi n-nafsi wa n-nafsu suuratu maa fi l-caqli wa l-caqlu suuratu maa fi r-ruux wa r-ruux suuratu maa fi l-camaa wa l-camaa suuratu maa fi l-cayni wa l-caynu suuratu maa fi d-daat suuratu z-zaati l-mutlaqati an l-ictibaaraat wa qad qaala bacduhum inna l-caalama suuratul ilaahi intaha min imlaayi alayna ala muhibbina radiyallahu anhu dafa mi dañoo miin ñuy jàngale ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yonent moo ko jàngale yàlla mu ngi bind maam aadama ci jëmmam ñuy laaj euh, damir bi fan la dellu maanaam ci per personne bi ci aadama la dellu wala ci yàlla ñenn ñi ne non yàlla mu ngi bind euh, l'homme a été créé euh, l'homme à l'image de Dieu boo demee ci ahlul xaqiqa dinañ koy jàngale seen tiyaan yi loolu la melal fii ndax nag yàlla nit ni nit ki mel nii noonu la mel déedéet feeñuwaay la ci moom suuratu rahmaan euh, suuratu man melokaanu yàlla euh, dafa ame euh, niroo ak melokaanu nit waaye bu dee yàlla ci originalité moom rek moo gis boppam moo xam ni mu mel mais yàlla dafay feeñu feeñuwaayam yooyu danay feeñuwaay ci melokaanu nit gis nga yonent bi wax na ci xadis ne raaytu rabbi fi suuratu sha fi suurati shaabin mas naa gis yàlla ci melokaanu xale bu góor mu wax ma ne ma atadri ya muhammad fi ma yuxtasamul malaul aala ndax muhammad xam nga li waam pays ba di waxtaane mu ne ko déedéet fa wadaa yadahu ala sadyi xata ajidu barda sad yadahu ala sadyi mu teg loxom ci sama ween bi ba may yëg seddaayu loxoom ci sama wen bi fa alimtu uluma al awalina wal axirina ci laa xam-xam-xamu ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi waju shahid bi ci loolu mooy yàlla dafay def ay feeñuwaay seen tiyaan nag ñu wax ne nee na gis nga jëwhër boo gis muy matière boo gis ci xol maanaam xol boo gis la bëgg a wax en résumé dafay résumé li nekk ci biir xol bi nit ko gis xolam dafay résumer li ne ci biir xol bi te ma dabaatal te xol bi li ne ci biir xolam nit ku ne li ne ci biir xolam mooy image bi mu la wan rek li muy wax moo nekk ci biiram nee na loolu nekk ci biir xol bi mooy refléter li nekk ci biiru biir xolam li nekk ci biiru biir xolam mooy refléter li nekk ci biiru biiru xolam muy troisième martaba muy aat ak sirru nee na nag loolu ne ci xol bi mooy reflété li ne ci yaram bi nit ku ne ni mu mel euh, ni mu li nga gis rek moom la looloo nekk ci xol bi nit ku bon lu mu ko nëbba nëbba boo leen yàggee nga xam ne ku bon la te kenn du leen ne ndax gisoo xol bi ndax loolu ne ci xol bi mooy reflété ci jëmm ji ku baax itam noonu la ñuy noonu ngay mel euh, wa tabiatu te nee na li nekk ci xol bi di reflété ci jëmm yi moom mooy image nature bi te li nature nit ki li nekk ci nature nit ki mooy image yu lu li nekk ci boppam li nekk ci boppam mooy jëmmam yépp mooy image li nekk ci xel mi li nekk ci xel mi Seydi Ahmad Tijaan nee na mooy image yu li nekk ci ruux bi li nekk ci ruux bi mooy image yu nag l'invisible li nga gisul te mooy euh, le monde invisible na li nekk ci monde invisible moo nekk ci jëmm ji li nekk ci jëmm ji moo nekk ci jëmm yàlla subhanahu wa dafa bëgg wax ne lépp loo gis rek bul jàpp yow image bi ngay gis rek moo fi nekk mais dafa am ay retombées yu bare bare bari yu nekkaat ci gannaawam moo tax xeeb benn nit ëpp naa def ndax koo xeeb rek à long terme yàlla nga xeeb te yowoo ko loolu Seydi Ahmad Tijaani moo ko jàngal Seydi Mouhamadul Misri muy xam-xam bu kawe fa tabaarakallah wa mimma amlaahu alayna radiyallahu anhu qaal yuqaalu fi l ishaarati an illah qaala inna fi l jasadi mudga wa fi lmudga qalb wa fi lqalb fuaad wa fi lfuaadi damir wa fi damiri sir wa fi sirri ana maanaahu mudgatun hiya allaxma alsanwa bariya walladi fiiha alqalb almuraadu fi lqalb alruux fi martabati kawniha qalban wa fi lqalbi fuaad walfuaadu hiya alruuxu fi martabati kawniha nafsan mutma'inna wa fi lfuaadi damir والضمير والمراد بالضمير هي الروح wa hiya martabatu kawniha nafsan radiyatan wa fi damiri sirr wa sirru hiya ruux wa hiya martabatu kawniha nafsan mardiya wa hiya allati iltaxaqat bi martabati fanaa il fanaa wa huwa maqaamu soxqi wal maxqi waddakki wal istihlaak xataa laa ayna wala asara wala gayra wala gayriyata wa fi haadihi almartabati yaqulu wa fi sirri ana wa fi haada almacna yaqulu ibnu alfaarid radiyallahu anhu wa ida duita kuntu almujibu wa ida duita kunta almujib intaha min imlaayi alayna sëriñ bi bëgg gën a élargir wax ji ne dañuy wax ci gaay yàlla yi dañuy wax ne koo gis mu taxaw rek euh, kooku mu koo gis mu taxaw la baax ci moom yépp mu ngi ci xol bi xol bi benn morceau la ba yàpp bu nekk ci biiram quelques grammes rek la euh, jëm kilo nee na xol boobu dafa amaat beneen lu ca nekk lu ñuy tuddee res nga xam ne xol ak res res moo gën a dal maanaam moo gën a sori nee na res ca la conscience nekk conscience ca la sir sirru nekk yàlla nee na nag secret boobu nga xam ne mooy dund mooy ruux mooy man maanaam kon nit ci intimité intimité am kon ndeke yàlla fa nekk même ki nga ne yéefar la sax yàlla ngi ci biiram ndax moom lay sabbal yusabbihu lillahi ma fi samawati fil ardi ci loo xam ne nag kenn du ko melal nee na kon morsu yàpp boobu nga xam ne moo visible nga naan xol baa ngi nii nee na liñ ci jublu mooy maqaamu ruux ruux lañ ci jublu mooy source de vie nee na ruux boobu am na lu ko muur te mooy xal xol bi xol bi am na lu gën a intime ci moom mooy fuaat bi mooy res bi res bi tabaarakallahu martaba la ci ruux itam mooy bu nekkee nafs te mooy bakkan boo xam ne mutma inna bu stable la dem na ba yàlla gërëm ko euh, ci biir nafs boobu maanaam fuaat bi am na fa lu ñuy wax damir mooy conscience conscience mooy ruux bi état d'esprit Seydi Ahmed Tidiane nee na état d'esprit boobu bu élevé dëgg dëgg dëgg ci wàllu yàlla ci leer dafay dem ba tudde nafsu radiya euh, muy bakkan boo xam ne yàlla bég na ci moom yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiya ila rabbiki radiyatan mardiya bu gënee baax nag gën a sell moom mooy dem ba mu dugg ci martaba fanaa ul fanaa dem ba jeex ci yàlla seey ci yàlla effacé wu daram du exister mu dem ba nga xam ne nii du nekk ci kooku boo ko doon làmb doo ko daj doo gis benn jeexitalam doo gis daram loolu la yàlla wax ne wa fi sirri ana bu ñu demee nag ba ci martaba sirru man maa fay nekk te mooy ku lën bët jaamu yàlla dangay ngay naan kii sëriñ bu baax la kii de waliyu bu baax la waaye booy dem di ko gëstu di ci dugg ci moom di dugg ci moom tey dem ba doo gisee sëriñ bi doo daje ci sëriñ bi yàlla rek nga fay daj loolu mooy ibaara bi nga xam ne sax am na sëriñ soo xam ne seen dalaa la ci seen bopp la ñuy wootee seen tiyaani jàngale na ko ci dars yi ci gannaaw ñetti woote rek la ñuy woote dafa am ñoo xam ne ci seen bopp rek la ñuy woote am ñoo xam ne ci yonent bi la ñuy woote am ñoo xam ne ci yàlla rek la ñuy woote seen tiyaan nee na ñett ñëpp benn la sëriñ bi nga xam ne boppam rek lay woote ñu naan waaw kooku nag moo gën a naqaree xam lañ naan waaw kii martaba rek lay woote darajaam rek lay woote boppam la faale fekk na piège la dafa bëgg bu la wootelee boppam ba nga sopp ko ñëw ci moom di di jaamu yàlla ak moom di gëstu ci moom da ngay dema dem ba nekk da ngay yëg ne sëriñ bi new fa yàllaa fa ne te sëriñ yu bari noonu la ñuy faral di def méthode boobu la ñuy jël woote ci seen bopp nga foog ne seen bopp lañ bëgg a samp fekk yàlla moo nekk ci seen biir mais comme nit dafay daw yàlla ñoom dañuy woote ci seen bopp boo ñëwee nag ñu soog la jox yàlla am ñoo xam ne yonent bi la ñuy wooteel di ko defal gàmm comme Cheikh Al Hadj Malick ba nga xam ne seen lépp yonent bi la boo demee ba yegg ci yonent bi yàlla rek nga fay fekk ke leen gën a kawe nag moo di ki nga xam ne yàlla rek lay wootal kooku moom euh, moom dafa amatul fenn fu muy jaar ndax yàlla rek mooy yàlla hada huwa tawfiq mu ne wa min kalaamihi radiyallahu anhu qaala zubdatu al-a'maali ash-shar'iyyati wa ghaayatuha irtifaacuha huwa at-tacalluqu billah taala bila nfisaamin wala tazalzulin wala dahamatuhu dahamaatu lfitani as-sacbati allati la yanju minha illa binxilaaci yadihi min siwa allahi taala wa inxisaamihi anhu fa hada gaayatu alamali wa muntaha wa hada huwa alfiqhu fi ddin yaqulu subhanahu wa taala fi hadihi sifa xiina zakara ma xalla bilmunafiqina min suui aldanni billahi wa rasulihi mima laxiqahum min addiqi alacdam yaqulu allah taala id jaaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaagat alabsaaru wa daaqat alabsaar zaaxatil absaar al aaya fa hataka subhaanahu wa taala astaar al munaafiqiin bima axbara anhum min suui zanni billahi wa rasulihi wal kadibi fi lxaal xaysu qaala qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaailiina li ixwaanihim ila qawlihi fa axbata acmaalahum wa axbara allahu an altaa'ifati aluxraa xaysu qaalu inna buyuutanaa cawratun wa maa hiya bi cawratin in yuriiduuna illaa firaara summa axbara allahu an akaabiri almu'miniin xaysu yaquul من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هكذا هو ثبوت التعلق بالله وعدم الانفصام عنه إذا هاجت أمواج الفتن الصعبة Seydi Ahmad Tijaani bokk na ci ay waxam njàngaleem dafay jàngale tey résistance ci yàlla neena dafa mel ni crème jaamu yàlla crème mu jaamu yàlla yëpp yëpp ci sharia bi ci gën a mooy jël sa bopp wékk ko ci yàlla ba nga xam ni doo hésité ci doo tergiversé maanaam àdduna ak li ci biir ci ay fitna bu daloon ci sa kaw doo tiit doo jaxle du sa fit du rëcc nee na kon loolu mooy crème mu jaamu yàlla loolu lan lay fii mooy kon ñun demuñu fen ndax koo xam ne lu ñëw tiital la jàmm lépp lu ko dal li mu war a njëkk a xalaat mooy lii yàllaa ko dogal te yow li yàlla dogal comme yow mënoo dawa dawa daw ba échappé ko maanaam kon yow léegi da nga war a noppalu dee dee la début mu ngi mel ni ki xëy rek ñu ne la sa yaay dee na wala sa papa dee na mu leer na leen loolu li muy metti metti amatul loo mën a wax ci àdduna bi wala nga jëf ko wala nga def ko ci ay pexe ba kooku dekkiwaat da nga naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek toog seen euh, ci nekk kon crème jaamu yàlla ndeket dëgg-dëgg mooy wékk sa bopp ci yàlla ba nga am ne dara du la ébranlé ci àdduna loolu moom mooy sommet wu jaamu yàlla te loolu li la koy may mooy nga dégg diine la grande compréhension dans l'islam compréhension dans l'islam nag du dem di jàng fiq bii mais mooy nga jaamu yàlla ba yëg leer googu d'ailleurs loolu yàlla toujours boo gisee muy teg jaam yi ay nattu loolu rek la bëgg ndax ñëpp a ngi julli ñëpp a ngi woor jàkka ji bu ñu wootee day fees del mais yàlla day jékki-jékki joxe ay épreuve pour xam ci nag ñan ñoo tënku ci cause am wala ñan la fi ngistal bàyyi nee na la yàlla defoon ci xazwatu Qurayz maanaam euh, xazwatu laxzaab xazwatu laxzaab ku ne xam na ne bokk na ci bataay yi gën a metti ndeysaan ci yonent bi ndax waa Makka dañoo dajaloo ànd ak yahut yi def coalition moom la ñuy tudde la bataille des coalisés yàlla tudde na ko saar ci alquran ndax foo xalaat mettitam rek ak tiitaangeem dafa yegg jullit yi ñoo nekk ci seen dëkk muy Madinatu Munawwara à leur grande surprise bi ñuy yëg ne Makka coalisé na ak les mécréants ba ñu am dix mille maanaam benn armée boo xam ne armée de dix mille te boobu jullit yi maximum bu ñu matee deux mille ci la ñuy yem jullit yëpp ñii xeex ak ñi xeexul ca la ñuy yem gis nga Uhud rek sept cent personnes ñoo xeexoon te loolu quelque mois la après Uhud euh, léegi ñu gis ne c'est le monde qui est à yàlla nee na ndekete da ci doon natt maanaam pas-pasu ñi nekk ci jàkk ji di julli su ak ngoon yàlla moom lay euh, wax fii ci saar bi suratul ahzab ne fàttaliku leen rek is jaa'ukum min fawqihim xool leen bi gaa yi ñëwee à tout à tous les côtés ñii ñëwee noor ñi ñëwee sud bi ñu def ay coalisés ñëw bett leen biñ leen bettee ñu informé yonent bi yonent bi dafa laaj saxaaba yi lu ciy xalaat ndax ñu génne xeex ñu ne ñun ñoom ni ñu toll mënuñoo génne ñoom di xeex te buñ ñu gaañee après dañuy jaar ci suñu gannaaw dugg ci dëkk bi yàq dëkk bi jël suñuy njaboot kon li gën <clears throat> Salmaan al Farisi joxe xalaat ne kunna fil faris isa xif naa xandaq na ñun de buñ masaana eh, am lu ñu noon bu ñu bett dañuy gas ay fossé ci entrée wu dëkk bi te ñoom seen dëkk yi benn entrée rek la daan doon boo fa gasee ay pax comme fas la ñu war duñu ko mën a jéggi ndax jamono yooyu aviation aérienne wala transport aérien amul woon terrestre rek moo mën a am ak maritime te ku ne xam ne ni euh, pax luy daw mënu koo jéggi xan euh, xandak noonu lañ def loolu moo tudd xandak ñu gas nag ay pax yu yaatoo yaatoo yaatu toog ci biir waaye miit bu jot yéefar yi dañuy ñëw ba ñu ba ba tiim pan kan mi di leen seen yeneen wax baat yoo xam ne dañ leen di intimider mu leer ne bu ñu amoon benn pont rek ba teg ko ci bu duggee moom dëkk bi jeex xam nga nit sax boo dee da ngeen xeex xeex bi jeex benn yoon di xam ne xeex bi jeex na kii gañe na kii gañe na waaye ñu la ëpp doole ba pare toog ngay janoog ñoom te bis bu jot fas yéenewu ñu dem te détruire ñu dëkk bi loolu day na ci tàngi mu ngi mel ni rek ku gaynde ñëw ba sa buntu kër fekk nga tëj sa buntu kër muy melasiku nga koy xool ci verre yi mu jël tempsam toog fa kooku non seulement am nga laalu la ndax yaa ngi sa biir kër waaye doo nelaw doo nelaw minute bu jot doo xam looy def di nga woo koo xam di lu ne di nga ci dugg noonu la yàlla nattoo jullit yi ndekete yàlla ci waxin moo ko tey dafa bëggoon xool ñan la seen pas-pas waaye ñetti kuréel ñoo ci mujjee feeñ ndax ñooñu mujjee nañ bis bu jot tiitaange gi di gën di yokk di gën di élevé mu leer la ne bu ñu romboon pax mii rek dee gi moom day day agsi euh, loolu nag yàlla wax ci euh, euh, am ñoo xam ne dañ ne dañoo nekk ci biir julli yi naan mais vraiment ñun li ñu nekk caaxaan la ndax waa ji bu doon yonente tiitaange gu métti gii deux semaines trois quatre duñ ci dal dina war a ñaan yàlla ñuy dem mais kii daal du dara ñooñu ñoo doon julli ñoo commencé di yàq deru yonent bi di décourager jullit yi naan xat yàlla ne xat yaalamullahu yàlla xam na te mu ngi yëgle al muawwiqiina ñii décourager jullit yi minkum ci yéen wal na ak ñiy wax li ixwaanihim inna buyutanaa awra euh, euh, ñi nga xam ne ñooy décourager jullit yi naan vraiment li kenn xamul lan la vraiment waa ji bu waxoon dëgg duñ ko tiime nii ñooñu benn kuréel la mooy ñii infiltrer jullit yi te waxoon na ay jullit lañ commencé nañoo feeñ moo tax ñu ne lislaam fu mu amee nattu rek ay noonam feeñ ñaar ñooñu yàlla daf leen jox pay mooy fa ahbata amalahum lépp luñ mas a def ci lu baax jëf ju bon jooju ñu def lakk na ko xëy na ñii du ñu woon ay naafiq sax waaye seen pas-pas moo dëgguwul dëgguwul woon lu ñu mas a jaamu yàlla jëf jooju ñu def muy naafiq maanaam lakk na ko beneen bi yonent bi day toog ba yàgg kenn nuyu ko ne ko dama bëggoon yegg kër gi mu nekk ci lan noonu mu nekk kër gi xale yi rek fa ne te kenn nekku fa damay bañ ñu doxee ko gannaaw dugg fa yonent bi nekk garaawul kooku dem keneen ñëwaat wax loolu yàlla itam dénoncé ñooñu ne ñu ngi wax naan inna buyutanaa suñu bëy suñu nekk yi awratun kenn nekku nekku fa yàlla ne wa maa hiya bi awra du awra de in yuriduuna bëgguñu illa firaaran lu dul échappé rek dañoo bëgg a daw rek maanaam ñu ragal moo tax kon ñooñu cause bi ñu wax ne moom la ñuy xeex gëmuñu ko ñoo ñu itam yàlla yóbbu leen ci beneen dimension bi ñii moom découragé wuñu kenn waaye dañ doon daw ku ñetteel ki nag ñooñ la yàlla tagg moo di jullit yi nga xam ne nii dañoo mel ni montagne ci dëgër dara dérangé wu leen muy Aboubacar Omar Ousmane Ali nga xam ne ñoo nekk ba quatre semaines yi jeex tabaarakallahu ba yéefar yi daw ñu soogu dem xare ji xaswatu xandaq comme niñ ko jàngale ci siira ñooñu nag la yàllay wax ne wala maara almuminuuna sama gaa yi dëgg bañ gisee laxzab les coalisés xaalu ñoom dañoo wax ci xel mu dal ne hada ma waadallah wa rasulahu yàlla moo ñu waxoon ne dinañ am victoire te victoire bala nga koo am foo nga dajeeg sa noon yàlla wa sadaqallahu wa rasuluhu yàlla wax na dëgg wa ma zaadahum mbooloo mi li muy bari bari dolliw leen illaa gën a yàlla wa tasliman ak dana jébbalu ñooñu minal mu'miniina am na ci jullit yi rijaalun ñoo xam na nii sadaku dañoo dëggal ma ahdullah yi li ñu wëllarante woon ak yàlla yàlla dañ jaayante woon ak ñoom ne dinañ la xeexal ba diine jub wala ñu duñ ko fekke yàlla miñ jaayante woon mu ngi confirmer ne fa minhum man qada nahbahu am na ñoo xam ne lañ waxoon dëggal nañ ko ba faatu nañ fekk si ma maa ngi leen di teral man yantazir am na ñoo xam ne deewaguñu ñu waaye maa ngi confirmé ne wa maa baddalu tabdilan mosuñoo échangé liñ ma waxoon loolu nag jullit bu ne war na ci bàyyi xel yow yaa wóolarante woon ak yàlla yaa jaayanteeg yàlla léegi na nga góorlu ba nga respecté sa jaayante boobu ak yàlla ak lu situation yi métti métti métti métti yow jullit bu la dara ébranlé ci sa euh, pacte bi nga signé ak sa borom subhanahu wa taala ndekete kon nattu foo gisee rek yàlla teg ko ay nitam du duplu ci lenn lu dul wane seen dimension nee na mais nag dimension bi nga xam ne dañoo dëgër a dëgër ba mel ni ay montagne dara du leen ébranlé nee na loolu doonul laysa hadi ila sifatul arifina billah al arifuna billah rek ñoo mën a am lii arif billah ci waxin boo ko fekkoon muy nelaw nga yekka ne àdduna mooy waaja a tukki mu ne mu yeggale ay nelaw ngir doyloo gu mu doyloo yàlla xam ne lu yàlla namm loolu dara mënu ko cee jële fa hada fi diin lii la ñuy wax nag compréhension en l'islam mais dajale ay téere rek toog naan fiq la déedéet mooy nga xam yàlla ba nga xam ne dara du la ci euh, ñooñu ñi àgg ci boobu dimension seen xol dafa sell ñu xam diine xamin goo xam ni xam nañ ne lu yàlla nammul loolu mënta am lépp loo xam ne lu yàlla nammala itam pexe boo dajale ci àdduna pour carré loolu yow dafa mel ni yaay organiser sax maanaam condition yi loolu ci gën a ñëwee ngir xam ne lan moo leen may lool nag mooy dañoo am dévoilement mystique spirituel boo xam ne mboolem melokaan yi ni yàllay defee ak ay turam ak melokaanam dañ koo xam xamin goo xam ne dund ko dundin goo xam ne loolu mooy alfiqhu fi diin ñooñu dañoo mel ni doj ci dëgër ci dogalu yàlla yi dara dérangé leen moo tax seen martaba yooyu dafa kawe kawe kawe ba ñoom lañ tuddee al fuqaha ay al arifuna waaye nag taxul ñu mën a àgg ci niveau yonent yi wala aqtaab yi déedéet ñoom al arifuna billah tabarakallahu al fiqhu fi diin buñ ko waxee fii mooy al arif billah gis nga Cheikh na Tiyaani fii woon na ko ci gannaaw ne la faqihun waxidun ashaddu ala shaytan min alfi abidin benn faqih ci wàllu yàlla moo gënal seytaane juróom maanaam junni jaamukatu yàlla yu dëkk ci xalwa te xamuñu dara ci yàlla loolu lan lay firi mu nee na faqih boobu jubluñu ci ustaas bi toog di jàngale déedéet mooy arif billah ki dem ba yàlla découvriral ko xam-xam yoo xam ne ñu bari xamuñu ko kooku dimension bi muy am ci xam yàlla euh, bokkul ak bi ñëpp di xam looloo tax yeneen ci wax ci xadis ne nit jaamuwul yàlla jaamu gu gën xam ko moom moo tax Cheikh Tidiane mënuñu koo fay parce que téere bii ñu mu ñu jàngal ci ay xeetu xam-xam ci xam yàlla maanaam moo gën zikr booy booy zikr jàng lu mel nii xam lu mel nii dund lu mel nii mën ngaa werd ba deet doo ko xam ndax werd moom mbiri boppam la donte dina indi maarifa biñ doon wax léegi moo tax yonent bi ne jaamuwuñu yàlla lu gën dégg diine te wala faqihun waxidun ashaddu ala shaytan min alfi aabid intaha yal na yàlla fayal ñu sëriñ bi mu ne wa saaltuhu radiallahu anhu an maana alaafiyati wa aqi wa xaqiqatiha fa qaala iclam anna xaqiqata alaafiya hiya alqiyaam ma allahi taala fi mutalaati muraadihi bi kamaali alrida waltaslimi waltafwidi walistislaam wa suquuti altadbiri walxiyali wa dawaami altabarri min jamici almulaaxadaati walmusaakanaati walmusaaxabaati walmuraadaat xataa laa yakunu lahu gayru llahi fi kulli nafsin abadan sarmadan wa sixatu dalika wa misdaaquhu an laa yaxtura gayru llahi ala qalbihi daiman fa hadihi hiya alcaafiyatu wa ida saalta alcaafiyata min allahi fasalhu ahla alcaafiya min xaysu yaclamuha caafiyatan eh, laa turiduhu wala taxtaaruhu wa amma qawlu alqaaili munkiran ala almursi radiyallahu anhu xaytu qaal inna aba bakrin sa'ala allaha alaafiya fa maata masmuuman wa umaru sa'ala allaha alaafiya fa maata maqtuulan wa usmaanu sa'ala allaha alaafiya fa maata maqtuulan wa aliyu sa'ala allaha alaafiya fa maata maqtuulan fa tilka martabatu alfuqahaa'i an illah walladi ankaraha gariqun fi baxri hawaa qad intamasat xadratu qudsiyatihi qad hadratu qudsihi wa munah fa ankara ma ankara wa huwa la ya'lamu qala sha'ir fa kam min 'aa'ibin qawlan sahihan wa aafatuhu min al-fahmi as-saqimi wa qad dhakara shaykhu mawlana Abdus Salam mushiran ila hadha alladhi dhakarnahu fi maratib al-'afiya qala radiyallahu anhu la takhtar min amrika shay'an wakhtar an la takhtara wa firra min dhalika al-mukhtar wa min ikhtiyarika huwa min infiraarika wa min kulli shay'in ila allah wa rabbuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaar wa amma qatlu haa'ulaa'i saadaati falqatlu lahum aynu alcaafiya atara sayidna yaxya qutila alayhi salaam ataraahu xaraja an alcaafiya xaashaahu wassalaam euh, Mawlana Seydi Ahmad Tijaani dañ koo laaj lan mooy réalité jàmm yonent bi moo wax ne salullah al afwa wal afiya ñaan yàlla mucc ak jàmm maanaam na ngeen ñaan yàlla njéggal ak mucc bopp na ñaan yàlla njéggal ak mucc sama sëriñ daan wax ne yàlla yàlla may ñu mucc ak muccale ndax boo muccee ci muccale woo itam du tax nga noppul euh, lan mooy loolu lan mooy mucc lan mooy jàmm Cheikh Tijaan nee na dëgg réalité jàmm mooy nit koo xam ne dafa taxaw ci ndigalu yàlla bàyyi ay tereem ci taxawaay bi gën a mat jébbal boppam boroomam ci jébbalin gi gën a mat euh, ba pare rocc ci boppam lépp loo xam ne bëgg-bëgg bakkan la ak ay pexe saxal ci maanaam génn ci lépp loo xam ne ay xeetu gendeeku la wala di tënku ci dara wala di ànd ak dara wala di namm dara ba nga xam ne jox na yàlla boppam joxin woo xam ne leneen lu dul yàlla rotal na ko loolu moom mooy dëgg dëgg dëgg jox yàlla sa bopp maanaam moo tudd mucc moo tudde itam jàmm xam nga ñun ni ñuy firee jàmm ak noonu bokkul a jàmm mooy nga lekk ba suur naan dara mettiwu la dala gi mais nii kiy wax ak loolu bokkul nee na li dëggal loolu nag boo demee ba am martaba bii léegi li koy confirmer mooy doo bëggati ku dul yàlla sa xol bi itam doo ci sàkkooti ku dul yàlla euh, booy ñaan itam jàmm ci yàlla da nga koy ñaan loolu euh, jàmm jooju mooy bi mu bëgg moom pa bi nga bëgg yow da ñun bëgg bi jàmm bi ñu bëgg mooy xëy lekk tabaarakallaahu ay misu yu baax fruit lekk naan géex tëdd naan man daal vraiment am naa jàmm jàmm boobu yow sa jàmm bopp la waaye bi yàlla bëgg mooy connexion connectivité bi nga xam ne moom nga am ak yàlla mu bañ a dagg d'ailleurs loolu la abul abbas al mursi weddi woon ci wax waa jooju sëriñ bu mag bu ñuy wax abul abbas al mursi dafa toog di waaraate benn waay tëb rek jug nuyu ko ne ko man dafa am lu ma lay laaj yéen yéenay wax ne nañuy ñaan jàmm nañu ñaan mucc waaw mais Aboubacar Siddiq ñaanoon na loolu yonent bi moo ko digle mu ñaan ko mais Aboubacar dañ ko empoisonné mu dee mais Omar da daan ñaan jàmm mais moom dañ ko rey dañ ko assassiné ci julli bu mu doon julli timis waaw Ousmane ku ne xam na ne ñaanoon na yàlla jàmm mais moom dañ ko encercler këram ay fan après mu xiif mar amul lu mu lekk njabootam amuñu lu ñu lekk à long terme ñu assassiné ko Ali ibn Abi Talib fële ci Kuufa moom it dañ koo gis muy jub di julli ji fajar ñu dab ko assassiné ko te ñii ñëpp wax nañu ne dañoo ñaanoon yàlla mucc xanaa ñaan ngeen nanguwul wala lan euh, Seydi Ahmed Tidiane ne kooku euh, ne Mursi bi mu ko dafa jaxle parce que euh, xam na ni kii maanaam euh, désir personnel am mooy laaj ak bànneexu bakkanam ndax ñooñu muy wax naan jaan ñaan nañu jàmm pour moom jàmm lekk ba suur la naan ba màndi tëdd fekk na loolu taxul ñuy wax jàmm jàmm mooy connectivité ak yàlla rek ndax nit boo amoon lépp lu ñuy tudde jàmm te juboo ak yàlla gis nga boo dee di nga xam ne amoo jàmm de Cheikh ne kon bari na kuy mib maanaam kuy diingat wax ju set wicc te fekk ndara tegu ko ko lu dul feebar moom xam nga nit ku feebar nag bëñam maanaam manam ku feebar gémmiñam dafay lewet li gën a neex li mu bëggoon boo ko joxee danaan li neexul euh, bari na kuy diigat wax fekk dafa feebar nee na loolu mooy li confirmé waxu Seydi Abdul Mus Salaam bi mu doon junj loolu ci martaba afiya biñ ko laajee waxu waa ji euh, maanaam waxu jàmm dafa wax ne mooy nit koo xam ne amatul benn choix ci digganteem ak boroomam au contraire dafa daw sax di choisir dara euh, walla lenn mu koy bëgg ndax jël gu muy jël jox ko boromam ngir xam ne yàlla rek moom moo détenir choix wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar yàlla moo bind moo am choix defe naa ki bind nag moo gën a yey ci choisir yow amoo dara amoo dara dañ laa bind nga ne yow yaay choisir sa bopp doo dem kon ci la tontu nag moo Abdou Salam ne wala Cheikh Tiani wax ne gis nga mag ñooñu ñu rey te bari na ku ku ñu naw fii ñun te fekk dañ ko assassiné tel tekkiwul ne dafa amul jàmm ñoom jàmm liñ ko tuddee mooy ànd gu ñu ànd ak yàlla ndax bu fekkoon euh, rupture te am jàmm kese fii ci àdduna mooy maye jàmm nee kon yëfër yi xam nga ne ku ci dee sa jàmm day jeex nee na itam bu dee rey jullit moo koy xañ jàmm waaw yow Aboubacar ak Omar ak Ousmane ngay wax mais le prophète Yahya mooy Jean Baptiste ne dañ koo assassiné euh, baayam Yahya Zakaria ci boppam dañ koo assassiné est en que loolu leen ci jàmm jooju déedéet moo tax wa ama saadaatu wa xayruhum kal xasan wal xusayn wa talha wa zubayr wa xayri dalika min min asaadat fa innahu akmala lahum al aafiyata tamma kamila fi dalika al qatl et pourtant du ñoom rek gis nga xasan dañ ko empoisonné xusayn dañ ko assassiné talhatu ak zubayr ñoom ñëpp dañ leen rey ci euh, euh, euh, maarakatul jamal mais ñooñu est-ce tax na yàlla enlevé ci ñoom ngubam jàmm mi mu leen solal déedéet tey ku leen fekkoon seen barsax di nga xam ne ñooñu pale ya ñu nekk dëgg-dëgg ñooñu rek am jàmm kon ñu mel ni ñoom itam ci nitu yàlla yi nga xam ne dañuy xeex ci yoon yoonu yàlla ba ñu rey leen ku mel ni Thierno Mabou Diakhou Ba wala Thierno Souleymane Bal Mawlana Cheikh Al Hadj Omar Fouti yow bu leen génn ci jàmm donte xeex nañ ñu rey leen ci yoonu yàlla waaye bul jàpp ne loolu tabaarakallahu di leen génn ci loolu ñu doon def bu dee Cheikh Omar dafa disparaître euh, loolu jàmmale ci moom gis nga mag ñooñu euh, dañoo yenu ci xeetu leer loo xam ne ñi gën a ndaw ci nitu yàlla yi bu ñu ko attanuñu ko waxatuma ñeneen léegi kon jàmm ci seen wàll génnul maanaam balaa boobu au contraire balaa sax dafay yokku ndax gis nga kii nekk ci suuratu yaasin euh, qiila dxulil jannata qaala yaa layta qawmi yaalamu maa gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin yàlla pour mu wax ko dañ ko assassiné euh, muminu ali firawna itam gis nga lu ko ci dal waaye yàlla daf ko mujjee recevoir àjjana gis nga asiyatu bintu muzaahim firawna da ko rey mu ne rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amalihi gis nga kooku àjjana jooju moom mooy jàmmam moom dafa mel ni kon appellation yi ak réalité yi ñun ci public bi maîtriser guñ ko yàlla ñu yàlla may jàmm yàlla ñu yàlla may mucc léegi tam xam nga ki ñaan loolu ba pare génne accidenté ci péage bi dangay ngay ñaanam dafa nanguwul fekk boo watul ñaanam moo nangu ndax loolu dafa dal ci bani Israël benn waay bu doon wax yàlla di ñaan yàlla ba yont yàlla Moussa romb ko mu nuyonteeg moom ne ko si yàlla Moussa udullaha lii an yarhamani ñaanal ma yàlla yàlla yërëm ma yont yàlla Moussa ñaanal ko ñaanu yonente nag du taxaw yont yàlla muusa da ko ñaanal dox doon doxi soxlaam dellu si fekk waa ji fi ko bàyyi woon gaynde yi di di di di lekk yax yi maanaam lekk nañ ko bay seeñu yax yi laa bëgg wax mu jaaxle ne waa xanaa kii du ki ma doon ñaanal léegi eh, yàlla yërëm ko mu ñaan yàlla subhanahu wa yàlla tontu ko ne ko sa alallahu rahma sa alallahu rahma euh, wala yasau arrahma fi dunya mu ne ko waa ji dafa ñaan euh, sa alallahu ma la dafa ñaan yàlla lu dul jeex ne yàlla ju dul jeex la ñaan te ma xam ne sama yërmande ju dul jeex barzax rek la xaj waaye xajul ci àdduna moo tax ma yebal gaynde yi ñu rek lekk ko ba actuellement recevoir nañ ko ba mu ngi xéwlu xam nga loolu apparence bi ku ko xool ak réalité bi li muy firi sore nañ ñun loolu nag daf ñoo dal ba bari na ku ñu naw ci diine waaye nam deewee tax ñu ne eh ci dafa yàqu euh, fekk na déedéet léeg-léeg yàlla ku mu recevoir ci ay nattu nga koy xame kon ndekete li suñu bakkan bëgg Seydi Ahmed Tidiane ne ak sécurité bi mu bëgg ci balaa yi ba boo feebaree sax ne xanaa yàlla daf ma bàyyi déedéet yàlla ñi mu recruter rek nag ñoo war a feebar sax foofu kon balaa yi ak métit yi ndekete sax mooy système de recrutement bi nga xam ne ci lay euh, filtrer ñi infiltrer système u yàlla loolu moo tax baadul aarifina wa huwa min fuqahai hada hada al maydan li baadi saadaati mustagiisan bi yaa sayidi udu llaha li faqad qarintu bil aafiyati maa tawfiri niam aw kama qaal wa xaafa min suu'i aaqibati haadha al-amr fastaxaasa billah wa li-zaahir waaqifuuna ma'a nufuusihim gaariquuna fi bahri al-hawaa falaa kalaama ma'ahum nee na liy confirmé ne ñun liñ tuddee jàmm ak mucc bokkul ak li mu nekk ci yàlla benn waay dafa am wërsëg bu dul jeex am alal ju dul jeex wér maanaam bu doon tey lépp di dox daal dañ naan toog lépp di dox waa ji dem dem dem ba ba tiit ci boppam mu dem ci benn nitu yàlla ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma yàlla musal ma yàlla muccal ma maanaam di jooytu foofu boppam ci nitu yàlla bi nitu yàlla bi nekk ko waa lu la dal mu ne ko dama fàttaliku ba ma xàmmee ba tey ci teraanga rek laa nekk ci xéewal rek laa ne ma ragal ne mbaadu yàlla lam ma waroon terale ëllëg fële dafa ma ko anticiper fii ndax naruma faa am dara ndax dara dafa maa mettiwul seen tiyaan nee na xoola dimension boobu ak ñun ñii nga xam ne nii suñu bakkan dafa fees dell ci bëgg yu baax ak ay yu neex ak yu woyof ba nga xam ne ku ci ponta jam sax nga janoog yàlla nankaan lu ma la def te loolu moom mooy confirmer li ñu wax ne maam Cheikh Al Hadj Malick waxoon na ko ñu daan na toog bu dundee vingt quatre heures te waxuñu ko lu ko metti du ci boppam du ci njabootam mu ne mbaadu malit yàlla da koo fàtte ñaanal leen ma ñu ñaanal ko bu toogee tuuti ñu ne ko waaw euh, sàkket yi lakk na wala kër gi nangam wala nangam loo xam ne daal du neex a dégg mu ne alhamdulilah yàlla kat ndeke cër yi muy sédd mu ma ciy sédd ba tey gis na cër yooyu wax dëgg yàlla ñun miinuñu ko dañu nekk ci jàmm ak sutura ak xéewal gudul dog lañ jàppee jàmm ak mucc ci yàlla fekk déedéet yàlla ña muy recevoir seen connectivité moom mooy seen cër waaye du nekk ci niñ ko miine nee na ba tey cheikhu Zarruq wax na loolu di ko dénk lenn ci ay taalibeem ne leen azimul ulama fa innahum xamalatu sharia dafa toog ak ay taalibeem ne leen boo leen dajee teg boroom xam-xam yi muy sëriñ si na ngeen leen ormal lool ndax ñoom ñoo hérité xam-xamu sharia yoo xam ne ku koy jàng ci ñoom lañ jëm waaye nag buñ demee ba dëkk ak ñoom des ci bu leen bu leen jaxasoog ñoom lool maanaam boo leen leen gisee boo leen amee loo leen teral teral leen leen waaye bu leen jaxasook ñoom mu ne lu tax mu ne parce seen bakkan moo not ci ñoom gis nga ab sëriñ boo xam ne ci bakkan la dunde boroom xam-xam boo xam ne ci bakkan la dunde da ngay gis ne boo ko nuyoo benn loxo sax mu ne waaw yow ndongali ñàkk ñàkk kersa ji euh, bu la laajee dara joxoo ko ko mu def ko histoire ndax ñooñu seen bakkan lañu duufal a duufal ba xamatuñu lu xew loolu feebar la yàlla ñu ci yàlla musal kon question bi bu ko adduna bi xamoon danañu bari lu ñu jàppe euh, euh, euh, maanaam ñàkk yegg ci yàlla te fekk ko loolu rek booy cër ci yàlla yàlla yàlla fayal ñu Mawlana Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa sa'altuhu radiyallahu anhu an haqiqati al-'ujb fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi huwa isti'zamu al-'amal huwa isti'zamu al-'amali wa nisyanu minnatillahi alayhi wa xaqiqatu riya huwa al amal li ajli nnaas li riyain li rajai nafcin minhum xissiyin aw maanawi aw li dafci durrin aw xawfi minna wa xaqiqatu al amal huwa mutaabaqat mutabaqatu amrillahi zahiran wa batinan min xaysu ma huwa huwa wa niyatu tawajjuhi ila allahi bi imtisaali amrihi walladi yacmalu lillahi mutawajjihan ilayhi raajiyan minhu alsawaaba ala amali fa hada mahallu tadaafuci alrijal wa min qaa'ilin bi ibtaalihi wala sawaaba la wa min qaa'ilin bi sixatihi wa sixati sawaabihi wa min qaa'ilin bi ibtaali al-amal xataa yarju sawaaba alayhi والتحقيق في هذا أن العمل لله خالصا لا للثواب ولا للطمع هو الأفضل والأعلى دليله قوله سبحانه وتعالى ما حكى في الزبور حيث يقول إن أود أود أوداء من عبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها wa xukkiya anhu fi baad alkutubi almunazalati yaqulu fiha wa man azlamu mimman abadani li jannatin aw li naar law lam axluq jannatan wala naaran lam akun ahlan li li ubada wa in kaana li tama'in wa rajaa'i sawaab fal amalu saxiixun maqbuulun musaabun alayhi wassalaam intaha min imlaa'i alaynaa radiyallaahu anhu ba ba tey Seydi Ahmad Tijaani Mawlaaya Seydi Ali Harazim Barra laaj na ko lan mooy réalité li ñuy wax ñun li ñuy tuddee euh, naw jëf mooy al ujbu mooy koo xam ne nii dafay jëf ngir bës dafay jëf ngir siiw dafay jëf ngir ñu gis ko dafay jëf ngir euh, fierté lan mooy maanaam réalité loolu Cheikh yi tontu ko ne ko mooy nit kuy réyal jëfam gis nga man maa def lii man maa wax lii nga man rek ma man lii wa nisyaanu minnatillahi alayhi ba pare fàtte ne yàlla moo ko ko jox maanaam ki dem aji ji màkk aji ji baax na torop rëy na waaye bu feebaroon du ko man kon balaa naw ne aj la ba ku ko waxul alaaji mu mer na fàttaliku yàlla mi ko may lu mu ajijee may ko wér nee na ngistal mooy koo xam ne moom li muy def yépp bëgg a xëcc ci njariñ mbaa dàq ci lor moo tax muy def maanaam bëgg njariñ mooy nit ñi gis ko wala nit ñi xam ko walla gouvernement bi yëg ko wala mbooloo mi yëg ko mu am ñu ko topp am ñu ko gëm yooyu moom mooy xeetu ngisal yàlla ci yàlla musal nee na nag jëf ju la dëgg mooy contraire ñaar yi mooy koo xam ne nii li muy def naw ko li muy def itam xëcc njariñ walla dàq lor taxul waaye yàlla kese moo ko tax di jëf ngir xam ne yàlla moo santaane ne nañ ko jaamu te mérité na moom yàlla ñu jaamu ko léegi muy jëfe loolu ragal ragal safara taxul bëgg àjjana taxul donte foofu am na werante bu rëy comme ni mu ko waxee ci dars bi bu weesu am na ñoo xam ne nee nañ képp ku jaamu yàlla àjjana tax safara ragal safara tax di nga am loolu am na ñu ne déedéet maanaam dina wér am na ñu ne déedéet du wér parce que loolu shirkul agrad la comme ni mu ko leeralee ci dars yi passé waaye seen tiyaani nee na daal man la may confirmer dëgg-dëgg mooy jëf daal dafa war a sell te yàlla rek tax bëgg yiw warul a tax ragal loraange warul a tax loolu li ko confirmer moo di yàlla dafa wax ci zabuur muy téere bi mu wàcc woon ci sayduna daawuda ne ko xanaa xamoo ni ki ma gën a bëgg ci sama jaam yi mooy ki ma ki may jaamu man daawuda te dara taxul retour taxul waaye dafa xam ne rek dama yeyoo jaamu mu jaamu ma kooku sama xarit lay doon beneen bi itam yàlla wax na ci téere yu jëkk ya ne kan moo daxa tooñ ki may jaamu ngir bëgg àjjana mbaa ragal safara waaw man yàlla maa ngi laaj jaam waa ndax ku ma bindul woon àjjana wala binduma safara ndax du duma ma ñu war maa jaamu tontu li mooy mooy ax ah kay xanaa kon nga gis ne jaamu yàlla ngir àjjana wala ragal safara bu dee loolu rek moo tax loolu gënul waaye bu fekkee nag dangay ngay jaamu yàlla yaakaaraale ko ci gannaaw yàlla rek tax ragalaale ci safara loolu moom al amalu saxiixun maqbulun musaabun alayhi wér na ni dina wér dina baax mu ne wa saaltu radiallahu anhu an maana al al adl fa ajaaba bi qawlihi al adlu ilahi huwa ictaauhu li kulli cheyin min nafsihi ala sidqi ma sabaqa lahu fi lcilmi alazali bi misanin yastaxilu alayhi alnaqsu walziyadatu fa hada maana ismihi aladl euh, ñu laaj Seydi Ahmed Tiyaani Seydi Ali Harazim laaj ko ne ko yàlla dafa am tur bu ñuy wax juste le juste mooy al adl ku màndu ki nga xam ne fa lañ jële justice bii euh, muy wasirul adl ministre de la justice nee na turu yàlla boobu boo ko doon firi ci tënk yow Seexna Tijaani loo koy firi mu ne turu yàlla boobu di adl mooy yàlla équité bi mu am ba lenn lu ne mu jox ko maanaam charge bi mu koy jox te du ëpp ku ne xam na ne balance boo ko tegoon benn bi bu ëppee bi ci des rek du ñu tollooti yàlla nag comme équité la soxla ak justice euh, moo tax lépp lu mu bind jox na la loo xam ne nii kaar euh, doo daanu te te booleeg nag loolu mu tolloo woon ak maanaam lam la bindaloon ca ësal yàlla ku li mu li ngay xame ne wuute nag jàng tey nit bu yoroon dépense am ne tey dama ko war a dépense oo ñu jekki-jekki ku koy tàgg dugg fa di ko tàgg di ko tàgg ñàkk gi muy ñàkk équité ak justice mooy tax dina joxe dépense ba toog di xoole yàlla mi am lépp nag gis nga du kontaan ci jàmm ba jox la lu mu la programmé wul woon du la du la mere itam ba xañ la lu mu la waroon a jox xam nga loolu fa la justice yam yàlla kon euh, justice am kenn xamul lu mu doon looloo tax daram manam manam balance am doone fii daanu na fële yéeg na noonu lépp a tolloo moo tax dinaay gis justice ñu ut benn balance def ko ci bunte bi mën a ah, dañuy jéem de waaye mënuñu ko yàlla rek moo amee justice boo xam ne nii du wàcc mukk euh, mu ne loolu li Cheikh na Tiyaan yi wayal nañu benn way mu ne man faatahu xusna wajhi man faatahu xusna wajhi faatahu faatahu al-ihsaan wa man ra'aani ra'a at-tahqiiq wa at-tibyaan ظهرت في الجسم في كشف وفي كتماني فلي خفاء ولي سر ولي إعلان لما خلصنا نجونا من تناجينا أو حالنا فوق ما نرجو مناجينا وقد جلانا tajalla fi majalina faman lahu mahwana hatta yujalina lii tax kii yi ñoo ko way nee na képp koo xam ne nii kanamu yàlla faat na la yow daal terangay àdduna ak àllaaxira faat na la maanaam yàlla daal ku mu rëcc ak loo mën a amati amatoo dara waaye ku am yàlla raat taxqiq wa tibyaanu am nga réalité am nga li nga bëggoon yépp man yàlla nag feeñ naa ci bépp jëmm ci ku am kashfu waaye ci façon bu nëbbu maa ngi maa ngi nëbbu maa ngi nekk ci sirru waaye maa feeñ itam man yàlla looloo tax képp ku ma sellal ma musal la ma maanaam ma déyanteeg yow boo ma wéetalee rek ma déyanteeg yow ci ni may déewanteeg sama gaa yi sol la li may sol gaa yi lu raw sax li li may maanaam li nga xalaat te képp ku ma sellal ci sa xol dinaa feeñu ci yow ci ay xeetu feeñuwaay képp koo xam ne nag effacé nga ma ci euh, euh, maanaam ku effacé mbindeef yi man itam ma feeñ sama feeñuwaay loolu dafay confirmer ne yàlla daal ku ko bàyyeeg sa bopp rek fa tabarakallahu mu fe mu doy la sëkk ku ko bëgg a jëndeeg dara nag di nga xam ne loolu jaru ko moom zukira anna sayyidna Musa radiyallahu anhu ala nabina afdalu salatu wassalam marida fa taala maraduhu fa naadathu usbatun an kulni wa shifaaka yaxsulu bi qaala laa fa qaala laha laa jarama anna allah huwa shaafi summa ba'da zaalika shakaa maradahu ila allah fa amarahu bi akli tilka al-usbati fa akalaha fa zaada maraduhu fa shakaa ila allah ta'aala fa amarahu bi-dhahaabi ila at-tabiib فلما ذهب إلى الطبيب وشكى له أمره بأكل تلك العشبة فأكلها فبرئ فقال يا رب ما هذا قال له سبحانه وتعالى شفيتك من غير مداوة لتعلم قدرتي وشفيتك بالحشيشة لتعلم حكمتي وزدت في مرضك بها لتحقق قهري وسطوتي وأحللتك على الطبيب وأحلتك على الطبيب لتعرف tarkiba mamlakati ana shafii liman ashaau bima ashaau wassalaam intaha min alayna Seydi Ahmad Tiyaani di jàngale ba tey xeru xereñu yàlla ak coobareem mu ne yonent yàlla Muusa dafa mas feebar benn bés feebar bu metti muy romb rek euh, benn xobu garab benn garab ne ko yow Muusa mu ne am mu woo ko comme yonent la da di dégg Eh, boo ma baxalee naan ma di nga wér ah mu xalaat ba yàgg ne waaw yàlla de moom mooy def lu ko neex dagg ci xob bi dem baxal ko effectivement naan ko wér eh, mu toogaat ab biir même feebar bi dellu sewaat ci moom mu jàmbataat yàlla ne ko man de dama feebar feebar sàngam doo ma faj yàlla ne ko demal ci xob sàngam nga baxal ko naan ko wér effectivement mu doonoon xob bi bi ko jëkkoon a wax ne ko booba baxale wér mu baxalaat xob boobu naan ko wér ñetteel bi feebar bi dikkalaat ko mu dem directement moom dem dagaat xob bi baxal ko naan ko feebar bi yokk mu wax ko yàlla yàlla ne ko demal seeti ji docteur mu dem ci docteur bi docteur bi diagnostiqué ko xool ko ne ko demal jëli ji xobu garab sàngam nga baxal ko naan ko wér te muy même garab bi mu dem ci garab googu daggaat ko ci ndigalu docteur bi baxal ko naan ko wér mu ne waaw yàlla lii mooy lan ñetti mbir yi lan la mu ne ko maa la doon jàngal sama xereñ bu njëkk bi faj naa la te euh, demoo faju ji dama la doon jàngal sama kàttan lu ma neex laay def ci nu ma ko neexe ñaareel bi faj naa la ci xob bi te mooy demal nga xool xooli ji euh, euh, xob bi nga baxal ko wér loolu dama la ciy jàngal sama xereñ xereñ mooy yàlla lu muy def rek dafa am fu mu koy jaarale mu ne ko bu ñetteel bi feebar nga mën a la demal ci docteur dama la doon xamal sama maanaam administration ni may administrer sama nguur ndax yàlla administrateur te ministre de la santé loolu lañ koy doye donte euh, Euh, ëppul pouvoir président waaye képp kuy jëm ci sante foofu nga jëm nee man maa la doon jàngal sama administration nga xam ne lu ne dafa am ku ma ko sédd moo tax gis nga docteur bi bi mu la joxee garab rek nga wér moo tax nit même bu feebaree bu demee ci ku koy faj ci wóolu ko wóolu fa yàlla dafay wér ci saas yi ndax yàlla moo koy wan administration loolu xereñ la bu yàlla di def ak ay jaamam mu ne wa saaltuhu radiallahu anhu an xaqiqati almakri fa ajaaba radiallahu anhu bi qawlihi xaqiqatu almakri huwa izhaaru nicmati ala alabdi wa bastuha lahu summa yudrijuha ila gaayati alhalak fi tilka nicma qaala subhanahu wa taala ayaxsibuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin nusaaricu lahum fi alxayraati bal laa yashcuruun wa sifatu alabdi an yakuna daa'iman xaa'ifan min rabbihi laa ya'manu ala nafsihi bi xaal wa laa yatma'innu qalbuhu min xawfi azabillahi qaala subhanahu wa taala walladina hum min ayati rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim gayru mamun walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim gayru mamnun wal iman lahu janaxaani ka taa'iri janaxun wa huwa al awalu wa huwa al xawfu wa huwa tawajjucu al qalbi min xashyati al waciid wa fi al xadiisi alayhi salaatu wa salaam al muminu yara zunubahu ka annahu qaacidun taxta jabalin yaxaafu an yaqa alayhi walmunaafiqu yara zunubahu ka zubaabi marra ala anfihi waljanaaxu saani huwa rajaau fi llah bi an yaxfira allahu lahu wala yuazibuhu wala yutawaqaau fihi al aman fa ida tamaxaba arrajaau waxdahu bila xawfin kaana amna wal amnu min allahi aynu alkufri billah wa ida tamaxaba alxawfu waxdahu kaana yasan min allah واليأس عين الكفر بالله والسلام وفي هذا يقول الشريشي ولا ترين في الأرض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القبر فإن ختام الأمر عنك مغيب ومن ليس ذا قصر يخاف من المكر Seydi Ahmed Tidiane dañ ko laaj Seydi Ali Harazim da koo laaj lan mooy pexe yàlla pexe léeg-léeg nga dégg ko naan bul wóolu pexe yàlla yàlla ndax kuy pexe la euh, euh, loolu la ñu laaj Seydi Ahmed Tidiane mu ne dëgg-dëgg pexe mooy yàlla du doon kuy fexe nga nga naan day fexe waaye dafa am loo xam ne loolu lañ mooy day naxanteeg jàmm bi mooy lan yàlla bu bëggee euh, duma jaamam dafay ubbil daf koy ubbil ay vaani wërsëgam sottil ko ko ba mu bari lool yaatalal ko ko ba fu mu gëstu sax daj xaalis fu mu gëstu daj ay largesse bu ko defee mu dem a dem ba naan lii sama liggéeyu yaay la sama liggéeyu baay la man maa ko mérité maa nangam xéwal yi di yokku rek xam nga ku la nar duma nag jox la condition yoo ko tooñee kooku wax dëgg yàlla fas yéene na laa duma yàlla noonu lay def jàmm loolu mooy pexe yàlla ne ci alquran ayaxsibuna annama numidduhum min maalin wa banin waaw yéefari dañoo foog ne largesse yi ma leen jox ci wërsëg baax rek a tax ma leen koy jox déedéet nar leen a duma ji ëllëg moo tax ndax comme ku def lu bon ma duma la bu ma leen joxee largesse ñu gën a mën a am kàttanu def lu bon fas yéene leen dumaa tax kon jàmm bi bari na koo naan tubaab yi ñoo ñu ëppale lii man dama bëgg a dem Europe parce lii dama bëgg a dem États-Unis parce que lii wala nga dem fu ba ñëw xepp jullit yëpp fekk na doo yëg ne yàlla da leen jox largesse yooyu ngir nar leen a duma ji ëllëg yow nag yaa war a tànnal sa bopp fan nga jëm fan nga jëm ci yooyu kon jàmm bi bés bu ragalee yàlla nga xam ne du wóolu pexem yàlla parce que wóolu pexem yàlla kon ndeke mooy xéewal yu bari yi nga ñu lay jox ngay lekk rek dañ la nar a bés boo xamee na nag loolu du wëy nga ragal sa borom ñàkk wóolu pexem dalal sa xel ci ragal yàlla subhanahu wa nga xam ne sa xel du tey loolu moom ñoom la yàllay tagg ne walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun yàlla mu ngi saluer jullit yi nga xam dañ koo ragal ragal ba buñ jéggee safara sax du lox yàlla nee na effectivement inna azaba rabbika ghayru mamun nee na mbugalum safara wóorul de mën naa dal ko ne gis nga nit nekk ku baax ñëpp naw ko waaye ci coobare yàlla mu mujjee dem safara ghayru mamun doonu lu ñuy wóolu yàlla dafa loolu la maam Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu wax ne jullit de di lekk dara xelam di tey moo gën muy lekk dara xelam dal lool manam jullit xelam waru la dal toujours dafa war a ñaaw njort ci boppam ndax mat na li mu doon wala déet nee na looloo tax ngëm yàlla ngëm dafa mel ni picc ngëm al iman dañu wax ne bopp bi mooy cofeel loo gën a sopp yàlla yaa ngi dund te ku dagge cofeel du dund ci waaye dafa am ñaari laaf laaf benn bi moo tudd ragal yàlla te booboo jiitu beneen bu ñaareel bi moo tudd wuulu yàlla ñoom la mam Cheikh alhaj Malick way ne jëla xayra jan wal xawfi tir naxwa malikin kafaakar rada naxwa euh, baril anam xasibu nee na kon yàlla danga ko war a ragal ba bu boo jàppoon ne am na ku war a dem safara ci ngay da nga ciy boole sa bopp te loolu moom la yonent bi wax ci xadis ne gis nga jullit li mu wuteeg naafiq jullit dafay tiite tiit ba jàpp ne bakkaaram yi dafa baree bari ba mu ngi mel ni ku taxaw ci diggante maanaam ci kaw montagne benn gratte bu kawee kawe ñu ne la tëbal noonu ngay ragale noonu ngay tiitee noonu la jullit di ragalee ay bàkkaaram parce que tëb bi mooy dugg bàmmeel bu duggee bàmmeel rek dee xaj na ci te mooy bu daanoo nee na nafiq nag li mu wuuteeg jullit li muy bon bon moom nafiq bàkkaar yi mu def day jàpp ne benn weñ la rek bu tag ci moom te weñ bi fu ko dàqee rek mu naaw mu jàpp ne jeex na boo waxee mu ne ay yàlla dañuy baal ñun ñëpp waay wala nga dégg ko ku nekk ci lu ko neex boo ko waxee mu ne waay ñun ñëpp àjjana lañ jëm waay loolu melokaanu melokaanu euh, naafeq la kon jullit diggante euh, cinquante cinquante yooyu cinquante bu ne mu am ci cinquante pour cent mooy wóolu yàlla ba mel ni àjjana la jëm directement waaye ragal yàlla bay tiit fu mu jëm moo tax tariqa bi sax def ko tariqa bi dafa wax ne adamul amri min makrillah adamul amni min makrillah bul wóolu yàlla euh, léegi mu mel ni loolu contradictoire la ndax wa yadxulul jannata xaawil wirdi xaawil wirdi wa waazin wa zawjatin kalwul ji tariqa bi ku ko jël ba deew ci dangay ngay dem àjjana directement waa léegi buñ nee la bul wóolee ci pexem yàlla loolu nan lay firi mu ne waaw xam nga loo war a ragal est que di ci dee parce que ragal gi yëpp foofu la jëm maay ku dee ci tarixa bi kay saxe nga waaye yow li nga war a tiit mooy li lay dog ci tarixa bi dafa bari te xamoo ko te doo ko gis kon looloo tax Cheikh Tidiane nee dalal sa xel trop lu la neex def lu la neex wax parce que boo ciy dog doo ko yëg mais beneen bu ñaareel bi moo itam ragal yàlla ba jàpp ne yàlla li mu am xajoo ci kooku itam xeet la ci yëpp yàlla ragal yàlla ragal yàlla bu ko tëb nga ne safara la jëm kooku itam xeet la ci yabaate kon ñaari laaf yi daal mooy na nga wóolu yàlla euh, ba jàppane buy teral dina la ci boole waaye na ko ragal itam ba jàpp am na éventualité buy duma dina la ci boole loolu mooy ñaari laaf yi nga xam ne mooy jur stabilité nee loolu d'ailleurs moom la imam Chérif yi wax ne fekk yaa ngi dund ci àdduna bul gis ne doon nga jullit piir bul gis ne itam doon nga yéefar piir ba ba ngay dugg ci bàmmeel maanaam ci diggante bi daal ngay ne ah man est-ce baax na mbaa est-ce mat na ndax nee na <clears throat> problème bi mu ngi nekk ci mujj gu rafet te xamoo ndax di nga am mujj gu rafet wala déet te koo xam ne nii deewoo ci lislaam kooku danga war a dangay euh, dangay da alku te comme yow wóoragu a ndax di nga dee ci lislaamam déet kon war ngaa ragal pexem yàlla loolu mooy tontu lu rafet lu ci Cheikh Tidiane yi tontu defe naa nag ñun bii bokkul ak bi ñu gëm de ñun ñun moom dugal nañ suñu bopp àjjana bu yàgg dëkk fa ci logement yi toog di te loolu risque la parce que boo yàggee jouer ak yàlla façon boobu yàlla day di jàpp ne chantage nga koy def yàlla doonul ku ñuy chantage yàlla ci yàlla musal wa min kalaamihi radiallahu anhu qaal kullu al aarifina fi shuglin an illah li annahum baqiya lahum darbun min xududihim illa ahlu tajalli al akbar alladina la xadda lahum fi ljannati fa innahum indahu subhanahu wa taala muqayaduuna fi xadrati qudsihi wa wasalahum bima la tutiqu alcuqul wasfa walaw annahu wasala alcaarifin bitajallihi lahum wa ma actaahum fi dalika la daabu min haybati aljalaali fa inna haulaai la iltifaata lahum ila aljannati wa naciimiha wala cibrata lahum aw wujidat aw udimat fa fihim yaqulu bacdu alcaarifin qawmun bi shahawaati alfarji walbutun walbatni mashgulun walil mujalasati qawmun axarun fa faaza billahi gayruhum fa innahum fi kulli lahdatin yatajalla allahu alayhim bima nisbatuhu littajalli alawal ka bahrin ila nuqtati ila nuqtatin wa hakada fima yudrikuuna min allazati wannaimi walfaraxi walsururi bixaysu an law tuulibu bilxuuri lahdatan waxidatan lastagaasu minhum kama yastagiisu ahlu nnaari min annaar wa hum alxaasatu ulyaa min safwatillah wa huwa maqaamu afdali almaqaamaati wa aclaaha wa haada almaqaam lam yakun li axadin min alcaalamiina siwa haadihi altaa'ifa illaa annahum salla illaa annahu salla allahu alayhi wa sallam lahu haadihi alrutbatu alcaliya maca mushaarakatihi lilcaalamiin fi shahwati albatni walfarji fa haada laa yaxjubu can haada wa haada laa yaxjubu can alaaxar wa huwa bidarurati anna man daaqa dalika fi janaabin lam yaqdir an yaltafita eh, yaltafita ila gayrihi wa man alifa talazuza bilxuuri wa anwaaci naim lam yaqdir an yusbita li hada almatlab wala an yaxuuma xawlahu illa huwa sallallahu alayhi wa sallam intaha min imlaai alayna ba tey Seydi Ahmed Tiyaani ci jàngaleem yu rafet yi mu ngi wax ne mbooleem daayi yàlla yi mbooleem ñi xam yàlla ñu ngi nekk ci soxla boo xam ne du dañ mukk nitu yàlla yi kenn amu ci temps koo ci gis mu ngi nekk ci tiitaange goo xam ne du la ko wax ndax dañoo yëg ne loo baax baax baax am nga ci sa bopp loo dese loo xam ne moom loolu baaxagul loolu di la metti rek nga koy metti nitu yàlla bu ne yàlla dina la nattoo benn bàkkaar boo xam ne doo ko mën a bàyyi wala dina jafe lool bu ko defee loolu doon doon loo xam ne dina la doy sëkk walis leneen loolu nag nit yàlla yépp la ci yàlla jox kër boobu lu dul ahlu tajallil akbar ñooy ñii benn catégorie lañ boo xam ne nii yàlla dafa génne ci ñoom lépp luy xeetu sikk ñoom yàlla da ko rocc bàyyi leen ak seen originalité ruux xanaa ak asxaab yi ak anbiya yi nit yàlla yi di ahlu tajallil akbar ñoom amuñu soxla ci àjjana kon ñooñu amuñu désir ñoom daal ñu ngi nekk ci yàlla sey ci xadaram ci intimité yàlla la leen yàlla recevoir di leen fa jox ci xeetu leer loo xam ne xel mënu faa yegg gis nga benn aarif billah bu yeggoon ci ñoom seen dimension ak li leen yàlla jox ci intimitém nit yàlla boobu li muy kawe kawe dafay seey ndax du attan ñoom li ñuy dunde par minute par tierce ci leeru yàlla looloo tax ñooñu yëguñu fu àjjana ne xamuñu luy àjjana jaamuñu yàlla ngir sàkku dara loolu <clears throat> ñoom la benn arif billah di firi ñaara am dafa am ñoo xam ne lenn moo leen rëgët lu ñu lekk ak plaisir sexuel mooy seen dund waaye au moment où am na ñoo xam ne plaisir boobu ñu ngi koy amee ci toog ak yàlla ci intimité am te nee na ñi mu ci jublu mooy ahlu tajallil akbar ñooñu ci intimité yàlla lañ dëkk dañ cee seey ba nga xam ne daray àdduna yëguñu ko daray allaaxira yëguñu ko xamuñu bànneexu bakkan yi xamuñu bànneexu ëllëg yi xamuñu ñoom daal benn mbégte lañ am mooy yàlla gi ñu am gis nga ñooñu boo leen fekkoon ci intimité yàlla nga ne leen kaa dama leen yóbbu àjjana pour xuurul ayni yi nee na nit nit di dawe safara ñoom noonu la ñuy dawe xuurul ayni yi pour wan la ne ñoom amuñu mbégte ci xol lu dul jëmmi yàlla nee na bii nag kawe na kawe goo xam ne ñooñu daray bàkkan amul ci ñoom moo tax kenn yeggu ci ci ñoom maanaam xam naa kon ñooñu yàlla da leen sotti te ay nit lañ de yàlla da leen sotti leer gi mu def ci malaaka yi ba nga xam ne dara dara ci bànneex nekkatul ci ñoom ñii kenn du leen dab mu ne kenn rek moo ci bokk ak ñoom ci raw leen ci ci nit ñi mooy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonte yàlla muhammad ku ne xam ne ne dina dugg àjjana dina am lépp lu fay bànneex dina ko yëg dina ko kii waaye itam martaba bi ñii am moom la am maanaam moom stabilité bi moom rek la ko yàlla mas a binde benn échantillon bu bokk ci xadara bi bokk ci beneen xadara bi moom yonent bi rek moo ko mas a àttan waaye ku dul ñoom da yàlla dalay boole ci côté malaaka yi wala mu boole la ci côté nit ñi nga amee désir ci bi nag moo gën a nekk malaaka malaaka yi moo gën a nekk nit nit ñi loolu weesu nañ ko ci dars yi te loolu day wane rek kamaliyatoom mooy mat gi ko yàlla binde mu mat wa min kalaamihi radiallahu anhu maana nuhdati alilahiya hiya alqiyaamu lillahi billah bila muzaajati alhawa falam yaqa maahu siwaahu min mutaabaati alhawa nee na ba tey seen tiyaan yi mu ngi jàngale beneen xam-xam da ngay dégg ñaan diw de man de damaa bëgg a jub jëm ci yàlla mu mel ni yàlla dafa nekk ci buntu kër gi wala dafa nekk ci koñ bi ba ngay jug jëm ci moom mu ne déedéet bu ko nitu yàlla yi di wax mooy yitte woo yàlla ci biir yàlla génn ci yàlla dugg ci yàlla nga am ne doo ko jaxaseeg daray bakkan doo bëggati dara doo toppati dara doo gëstu dara lu dul yàlla nee na nitu yàlla yi fañ cay yegg bu ñu xësee dugg ci dëkk day mel ni nit koo am ne ni maanaam maanaam maanaam sey na ci léppi àdduna nee na loolu benn misaal rek laa la ciy jox dafa am benn nit yàlla bu yeggoon ci martaba bii <clears throat> mu nekk ci village yi benn bés mu ñëw ci al maanaam mu ñëw ci dëkk bu mag bi ville bi fekk benn cantine buy jaay mu nuyoon teg waa ji nekk yow lii ngay jaay nii lan la mu nekk sàngara laay jaay mu nekk sàngara mu ne ah, mu nekk xanaa xamoo ne dafa xaram waaw ah, mais man sama yoon nekku ci man damay jaay sàngara rek moom foo ne ne day jënd nit yàlla boobu yëpp yëpp boobu mu ne ci yàlla tax loolu moo fudd ci moom rek mu tëb commencé song euh, butéel yi di toj di sànni ci mbeddam yi di toj ñuy tuuru muy sànni ci mbedd mi muy toj euh, nee na borom boutique bi moom sikkul nekk yi gouverneur bi moo ko yabal ndax gouverneur bi euh, comme moo fi nekkal lislaam xëy na moom moo santaane kii mu mel ni ñi wax contrôle de prix euh, mu ne xëy na ci ñoom la bokk ndax buy autorité ku ko am ñëw boutique gu jàmbur di ut yooyu toj kon buur bi moo la yebal nee na fekk na lu mat tabaarakallahu soixante dix njax njax ñoo fa nekkoon mu toj ba mu des benn mu arrêté waa ji ne ko waaw yow borom boutique bi xanaa buur bi moo la yebal mu ne ko noonu man daal def naa li ma sentir defal li nga sentir man xaw ma buur bi mu nekk yow kon da nga ñëw nii rek fekk lii ma dépensé ci alal nga toj ko nii mu ne ko sama yoon nekk daal waaye dafa xaram def naa li ma bëgg yow defal li nga bëgg borom boutique bi rëgët ko yóbbu ko ci wu dëkk bi ne ko man dama am problème ak diw mi parce que dama foogoon ne sax yaa ko yebal def na lii def na lii def na lii waa ji ne mais yow ban autorité maanaam gouverneur bi ne nitu yàlla boobu yow ban autorité nga am ba war a fekk bu jàmbur nga di ko toj euh, di ba ba di fa génne yi di ko toj te mu def def ci alal ji mu ci def te di fay ay taxi euh, mu ne borom boutique bi ñaata la toj mu ne ko soixante-dix la woon toj na ba mu des benn bi benn bi nag mu bàyyi ko xaw ma lu tax mu bàyyi ko mu woo ko ne ko yow lan moo tax nga toj lii mu ne ko dama yëg ne dafa xaram mu ne ko lu tax nga toj soixante neuf yëpp bàyyi soixante dixième bi mu ne ko damay toj di toj ndax yàlla boobu rek laa gis sama kanam te comme yàlla moo xaraamal lii moom rek laa gis sama kanam waaye ba ma demee ba mu des benn nag sama bakkan wax ma ne yow xam nga ne lii yàlla taxul da ngay gisal rek nee na bëgg boobu maanaam bañoon satisfaire sama bakkan ci wax ji ma wax ne da ngay gisal ma xam ne bu ma tojaatee soixante dixième bi effectivement boobu moom yàlla du tax soixante neuf yi moom bi ma koy def yàlla tax mais beneen bi moom biñ nee ma da ngay ngistal ndax boobu marché bi yëpp a nga koy seetaan nee na muy bañ a toj boobu ci ngistal moo tax mu bàyyi boobu gouverneur ne waa ji yow andiloo ma nit ci dimension yi mu yekk man yegguma fa dem leen dinaa remboursé waaye waa ji moom bàyyi ko maanaam kooku noonu lañ ko mujj a bàyyi xam ne dimension am sori na sori goo xam ni ñooñu yàlla rek la la comme ni ko seen Tijaan yi jàngale nee ba tey moo dal beneen waay boo xam ne seey gi mu sey ci yàlla dafa ñëw ci benn dëkk fekk dëkk bi di jaamu benn garab wala benn guy comme ni ko yenn dëkk yi di defe ba tey di fa sotti seen i affaire rek di fa def seen mbir waa ji mer daw jëli ji sémmiñ ne lii sirk la sirk la ñëw ne da koy gor bi mu ñëwee ak dooleem ne da koy gor seytaane doxe ko gannaaw parce foo gisee ay garab yi ñuy jaamu rek ay rab ñoo ci nekk muy seytaane seytaane moo génne ci garab gi euh, ne day xeex ak góor gi waaye bi mu bëggee song góor gi rek góor gi da koo yenn rek teg ko ci suuf bi mu ko tegee ci suuf xoj ko bëgg ko rey seytaane ne góor gi de dimbali ma dimbali ma baal ma dafa am lu ma la bëgg a wax ah mu jóg taxaw naka lan la mu ne ko yow gis nga ñaata ak yaa ngi jaamu yàlla yaa ngi nii sa yaram bi yëpp yàlla rek la fees euh, te yaa ngi nii amoo loo lekk amoo loo nan dafa am benn pacte moo bëgg a signé ak mooy tous les vingt quatre heures boo yëkkatee sa sijaada dinga nga fa fekk ñetti dërëm yu ma la fa tegal bu doon tey dinaa la fa tegal cent cinquante mille chaque jour góor gi ne teg ne ah fi loolu neex na de man li ma am ci bor te maa ngi nii mënaguma am lu ma ko faye ba tey mu ne ko ah def boo fa defee de mu ne ko d'accord na waaye dinaa xool ndax andi nga ko wala déet góor gi teg jaasi ji maanaam semmiñ bi delluwaat këram ca suba ga dafa xool der bi rek fekk fa xaalis boobu ñu ko fa waxoon mu kontaan deuxième jour bi mu fekkaat ko fa gën a kontaan troisième jour bi mu dindi fekku fa dara falam yejit shay'an fekku fa dara fa rajaa ilal ghadi yaqta'aha mu mer nag jëlaat semmiñam ne day rag dagg ji garab gi bi mu da bi mu ñëwee bay dégmal garab gi fa'taradahu iblis fi tariq iblis dogaale ko ne ko boo ma jeg boo jegee garab gi ma rey la de boo jegee garab gi ma rey la xanaa xamoo ne sa yoon mu njëkk wa mënalu na la dara ndax bi nga ñëwee yàlla kese nga àndaloon te yàlla kenn mënta bëreeg yow bëreeg moom ndax bi nga jugee yàlla taxoon nga jug waaye yoon wu ñaareel bi lan moo tax ñetti dërëm yi nga jotul moo la metti kon léegi bakkan a tax bakkan boobu nag maa ko ëpp doole góor gi dafa xam ne wax nañ ko dëgg mu delluwaat bu jekk xam ne seetaane jekku na ko loolu la bëgg jàngale moom seen siyaan ne gaa yi yàlla dafay seey ci ñoom seeyit ngoo xam ne seen daray bakkan du dox ci ñoom yàlla yàlla fayal ñu leen te fayal ñu ko moom mu ne wa sami'tu yaqulu kullu ma xalaqa allahu fi dunya min addawaabi kulluha maxluqatun fi ljannati ila arbaatun alkalbu walqirdu walxinzir walqunfud wa jamia dawaabi al ard la tadxulu illaa ashyaa'un mustasnayaat naaqatu saalix alayhi salaam fasiiluhaa wa tayru suleymaan wal hudhud wallaahu a'lam awi sarand wa ximaaru uzayr wa kabshu ismaa'iil wa ximaaruhu sallallahu alayhi wa sallam wa naaqatu wa baalatu wallaahu a'lam wa kalbu ahli kahfi wa salaam ba tey wane ne ànd ak ku baax baax na trop seen tiyaan nee na lépp lu yàlla bind ci daabay àdduna bi daaba mooy yi nga xam ne nii les animaux lañ leen di tuddee. amul dara lu ci euh, euh, lu ciy dugg àjjana ndax animaux yi yëpp ëllëg yawmal qiyaamati yàlla dina leen dekkal nag yeeg fas yeeg rab eh, rab yëpp waaye bu ñu leen attee ba pare dañ naan leen kuunu turaaban nekk leen suuf nee na excepté ñent ñenti rab rek ñooy dugg àjjana lu jëkk bi mooy xaj xaj dina fa dugg ak euh, tabaarakalla maanaam dafa bëgg a wax ne kunu turaaban mais après bu ñu demee yowmal qiyaamati nag ba dugg àjjana yàlla dafay bindaat ay rab foofu ci biir àjjana yu niroog yii nga foog ne yu ñoom la fekk na euh, ñoom du ñu dugg yooyu maanaam di nga boo demee àjjana mën nga fa gis fas mën nga fa gis nag mën nga fa gis gëléem mais da ngay foog ne yii nekkoon ci àdduna fekk déedéet yeneen la ndax ñoo leen gën a rafet gën leen a rëy nee na excepté ñeent ñeent moom ñeent ci échantillon yàlla du ko fa dugal mooy xaj ak golo ak mbaam xuux an qunfus mooy signal signal ñeent yi duñu dugg biir àjjana maanaam seen seen seen espèce du fa nekk na nga xam ne mbooleem rab yi dund ci àdduna benn du ci dugg àjjana kuunu turaaban lay doon loolu ñeent itam ñeent rek moo ci dul dugg wala boog yii may tudd moo di gëléemu yonte yàlla saalix bi Baye Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour daan na wax ne kuy wax ne ànd ak ku baax baaxul danga nga àndul ak ku baax parce que nee na gëléem li koy dugal suñ gëléem yi bennaa ci dugg àjjana mooy gëléemu yonent mooy yonte yàlla saalix wa fasiluha ak euh, maanaam doomam bi xam nga naqatallaahi wa suqyaaha gëléem gi dafa amoon doom ñoom ñaar dinañ dugg àjjana ak euh, piccum Suleymaan piccum yonte yàlla suleyman am na ñu ne hudhud la am na ñu ne sirind ak euh, mbaamu yonte yàlla uzair ak euh, xar mi ñu jotee ismail ak mbaamu mbaamu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi bi mu daan war mu yaafuur ak gileemam googu nga xam ne ci la waroon dem tukki ji ak tabaarakallahu baxlaam bi yàlla moo xam téere boole nañ ci nag ak aju asxaabul kahfi xaju asxaabul kahfi nag wutewul ak liñ la waxoon sànq ne xaj du dugg àjjana maanaam espèce ba du fa am mais xaj bii moom dina dugg àjjana lii mooy jàngale yi nga xam ne Mawlana Seydi Ahmed Tijaani doon na ñu ko jox tey ci dars bi yal na yàlla fayal ñu ko ku ko xool di nga xam ne dëgg-dëgg bu dee sëriñ itam xam-xam bi bari na lool lool lool te sell yalañ ko yàlla fayal royloo ñu ko bi max bi fadli wujudi hada huwa tawfiq min allah wassalaamu aleykum wa rahmatullah